mu mun a wax ne awma courant mhm. bëgg na courant bi tasaaroo weesuloo fu nekk ci Sénégal fii ak mille vingt cinq te loolu it beneen sas bu mu ñu ci def daf ne bëgg naa programme boobu nga xam ne presque six cent milliards la ñu fexe nag ba ay entreprise sénégalaise yoo xam ne mhm. sénégalais yi ñoo ko moom mhm. ñu mun ci si gis seen bopp loolu moo war waral lënkaloo bi tey ñu def Séné diggante Sénélec ak Excelec diggante bi nag ñu ngi siy sant yàlla bu baax ndaxte fu ñu daan électrifier fukki dëkk si juróomi weer wala juróom-benn weer tey jii nii si ñetti weer def nañ presque juróom fukki dëkk muy programme boo xam ne it sénégalais yee ko xalaat sénégalais yi finance ko pour mu jëm ci sénégalais yi kon loolu aussi sëñ bi ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu si bu baax baax a baax en lu ma mën a wax mooy Senelec pare na lépp lu nga xam ne moom la daan def pour si événement yi ni ñu jublu ñu taxaw si équipe yaa ngi nii délégué baa ngi nii le directeur des régions ñëpp a ngi nii ñu ngi déglu rek di sàkku parce que lépp li nga xam ne nii moo war fii si Touba président def nañu bu dara manqué si loolu lañ nekk loolu moo nekkoon tànk yi tey sëriñ bi ñuy sant bu baax di gërëm bu baax di sàkku ñaan di wax ne sëñ bi yàlla na fi yàgg. te yàlla may ko yi mu am yëpp. pour Touba mu ko yeggale ak jàmm. ngi sant bu baax di gërëm jërë ngeen jëf salaam. directeur yaa bi ne yéen ñëpp mi ngi leen di nuyu ne mi ngi nuyu directeur général Sénélec Pape Demba bi tey ne yaa délégation bi nga àndal bépp. ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne tey mooy Sëriñ Tuuba ne di la yóbbante nag nuyoo ci say kilifa ne li tàmbalee ci ministre bi ba yegg ci président de la république mi la ko sant ne kon ci turu sëriñ bi ne sëriñ Mouhamadul Bachir ne ñi ngi lu bu baax a baax liggéey bi liggéey bi nga xam ne def nañ ko fi ne daaw defoon nga ci lu rëy ne ren jiitam itam ñu wax ni li nga ci defoon daaw rek yokk nañ ko ñaar ne kon wane na ne xam nga cërub Sëriñ Tuubaa ndax li fi dëkk dafa bari kon lépp lu jëm ci taalibe yi rek nga def ko ba mu yegg ci ñoom ne cant gi kat kon ci loxol sëriñ bi la ne ndax ñépp ak njabootam lañu ne bu sañoon kenn du ne ci tumuranke kon nag bu ngeen ko ci gàttandoo ne mi ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen ci gërëm ne di rafetlu nag seen teexaawaay bu baax ne ni ko Mohamed si la waxee léegi rek lépp lu jëm ci dëkk bi ne Pape Demba bi tey bu ñu la ko waxee ne da ko def waaye da koy jëfe nag yéene ne loolu nag mooy la cëpp solo kon dañ lay ñaanal bu baax lii nga xam ne sas nañ la ko muy yaakaar ju rëy na la ci yàlla dimbali gàttandul la ko yenul la ko ba mu bañ ci yow ba fa nga bëgg mu yegg fa mu yegg fa ne sëriñ bi ne sant nan la bu baax a baax ci turu sëriñ bi ne di nuyu nag ne kii nga xam ni kat moom nga àndal ne ñu xam ni diggam ak sëriñ bi ne ñépp xam na ko ne muy doomi sëriñ bi dib taalibeem muy papa Ali Guèye ne yàlla defal na ko tawféex ci sëriñ Saaliw ne sëriñ Saaliw doonoon ab sëriñam ne wax def yu bari ci moom ne ginnaaw bi itam mu jógee ko ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ne kon nag bu ngeen àndee ne Pape Ali Gueye demee noonu ci dëkk bi di fi dee dib goro it ci wan wi ndax soxnaam ndax courant bi moom ñëpp a ko soxla ne bu ñu sañoon kër yëpp ay am courant rawatina quartier yu sori yi nga xam ni courant bi yëg yëgsiwul ci ñoom bu ñu sañoon fépp mu yegg fa ne daanaka at màggal gi at mu jot màggal gi bokk na liñ ci gën a soññee ngir ni ko nit ñi yittewoo kon ñu ngi jeexale foofu kàddu yi ne sëñ Moussa Moussa mii nag ne te ñu teg ko ci comité organisation bi moo ko jiite ànd ko ak sëñ Mourtala Bousso ak sëñ Mourtala Lo ne ñoom la leen boole loon ngir ñu xool juróom-ñaari poste yi nga xam ne def nañ ko fi ne yi nga xam ne def nañ ko ci dëkk bi ne kon incha allah bi yëgoon na lépp waaye daañ ko ko jottaliwaat baax a baax ba xamee ko noonu ne kon sant nañ leen bu baax a baax jërë ngeen jëf ne ak cant rek moo ci war ndax nit moo boo xamee itteem xam soxlaam